te nag li nga xam ne moo soxal wàllum filière scientifique yi loolee nii waa na yoo xam ne danañu leen fa orienté loolee moo tax ministre Moussa Baldé nee na ñi nga xam ne ñooy doog a am bac bi ñu ko xayma toll nañ ci soixante-quinze mille nouveaux bacheliers te nag ci biir soixante-quinze mille nouveaux bacheliers lu toll ci soixante mille yëpp ay littéraire lañu moom professeur Moussa Baldé démb ci assemblée nationale daan nay wax ne tendance bi nag il faut ñu nañ ne étudiants bi foo xam ne filière scientifique yi nañu fa orienté élèves yi te dafa war a commencé lycée Assane Samb xëy jël xalima ma nee na nag jamono ji daal am ay scientifique ngir nag mën a tabax réew mii di Sénégal rawatina nouvelle technologie ak wàllum pétrole ak gaz bi nga xam ne moo feeñ ci réew mi yéen a kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Mame Diarra Diagne dib député dëkk ca diwaanu Tambacounda démb ci assemblée nationale xool na Moussa Baldé ci biiri bët naka ñun waa Tamba dañoo soxla ab a kaay gii di Walf Fadjri bàyyi mbir moomee wax ci wàllum politique nee ji ndax ñi nga xam xam ne ñooy waa jamono ji amuñu benn activité politique boo xam ne ñoo ngi koy def seeni mbir demul cee nga dikkul mbay laara am na benn responsable parti socialiste boo xam ne dafa nëbbu turam ci yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na ñi nga xam ne ñooy kilifay parti socialiste yi ñi mu sax li nga xam ne mooy ab séminaire ndax xam na ne bu ñu fa organiser ab séminaire danañu fa waxtaane lu jëm ci wàllum candidature bu Macky Sall ak parti socialiste dafay am candidat 2024 wala du ko am responsable politique bi daat nay wax ne ñi nga xam ne ñoo jiite parti bi xamuñu fan la ñuy teg seen tànk li am ba des mooy parti socialiste dañoo war am candidat waaye Aliou Ndoye nee na mooy candidat am 2024 Cheikh Seck nee na mooy candidat am 2024 Serigne Mbaye Thiam clair ay mbiram dafa daal di lëndëm leerul yéen kaay gi di Le ñu xëy fekk fa Pape Modou Fall nee na juridiquement Macky Sall naa sampan ndëndëm yéen kaay gi di Rewmi ñu xëy fekk fa Momar Ndaw bu Ascosena daal nay wax ci lu jëm ci wàllu wàññi gi ak commerçant yi nga moom Momar Ndao nee na commerçant yi nga xam ne ñoo fi nekk naan xawma stock bi ñu yor jeexagula loole waxu caaxaan la yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor daat nay wax ci lu jëm ci wàllum cumul mandat nee na Sénégal jot na jamono ji ñu daal di voté loi boo xam ne daf koy daal di tere ndax Ousmane Sonko ci atum 2019 waxoon na ne su nekkee njiitu réewum Sénégal dina yóbbu assemblée nationale loi boo xam ne dafay tere cumul mandat waay nag li nga xam ne moo jaaxal gars yi dafa am ñaari nit Ousmane Sonko kenn ki tudd Aliou Bey ki tudd Birame Souleye Diop ñaar ñi ñu bokk te dañoo cumul ba doya la na ñu bari ci patriotes yi naqarlu nañ ko ba maarali tale yéen kaay gii di Le Quotidien xëy wax ci grève bi am ci secteur primaire bi journal bi nag nee na liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéeyee Sogas éleveurs yi ak chevriers yi ñoom nag wane nañu seen jàppale ci directeur général bu Sogas di Arona Gallo Diallo yéen kaay gii di Vox Populi nee na tay la tey match bi war a dox diggante Sénégal ak Pays-Bas tey ji la bu 16h jotee ci coupe du monde Qatar 2022 yéen kaay gi ñu xëy fekk fa Aliou Cissé am na confiance bu a baax nga xam ne dañu ko forfait am nay ndaw yoo xam ne taxaw nañu ngir nag relever défi bi yéene kaay gi ñu xëy fekk fa entraîneur bu Pays-Bas nee na Sénégal du n'importe quelle équipe Kalidou Koulibaly nee na ñoom dinañu ñafe maanaam dinañu def lu ñu man ngir Sénégal yéene kaay gi de Le Quotidien nee na Sénégal ak Pays-Bas tey jii la bu 16h jotee maanaam ñeenti waxtu yéene kaay gi de La Sa nee na Ballo Touré dafa forfait contre le Pays-Bas Karim Wade nay wax ne tey jii dina nekk ci wetu gaynde yi maanaam ci biir stade waaye nag li nga xam ne moo am journal bi nee na moo Macky Sall ñooy bokk stade bi Karim la journal bi nee na Macky Sall bi muy jox gaynde yi li nga xam ne mooy drapeau bi jaajëfal na leen bu baax a baax yéen a kaay gi du l'observateur nee na Moussa Ndiaye moo ñëw renfort remplacer Sadio Mané